bi ñu xoolee mbas mi euh, ñu mu song torop suñuy mag ñu ne nag comme soxla nañu suñuy mag ñu nit ñu ne nañu leen jóg ndax mag ñi koo ci gis mu ngi ci ruqam xam nga yow dañ la fekk nga beru toog nii donc ñu ne kon lépp lu la mën a dal daf la fekk ah ñu seetlu ñan ñooy dem ñan ñooy dikk ñan ñooy gàddu ñan ñooy indi ci kër yi yu ne xale yi ndax xale ak maamam bu ko maam seeni rek dal dee daal di jël këf teg ci luppam ñu ne nag léegi maam il faut nga changer comportement changer comportement bi mooy lan gaa ñi buñ dematee fooyiti ba pare buñ ñëwee euh, bu ñu la jege nañu leen jël sang leen ba pare ñu soog a ñëw ndax ñoom bu leen yëf yi dalee du feeñ te it duñ ko seetlu ay asymptomatique lañu ñu ne kon mbir mi li koy dugal ci mag mi parce que mag moo gis ma nga cëru xam amanaa booy dem ci néegam sax di nga jaar ci saal jaar ci beneen kii soog a àgg ci néegam kon ñoom bu leen mbir mi fekk see rek ñoom ñoo ko indi alors ñu ne nag léegi kon maam na changer comportement moom mooy lan gaa ñi bu ñu ñëwatee nañu leen sang ba pare ñu soog la jege parce que maam bu ja bu bu jàppee euh, taw day ñëw ne ko yaay ndax yaram bi dafa sutante nangam sangam daal di ko fa jële wële leen jox leen ku ci nekk ab gel boo xam ne di nga ko mën di euh, laal de temps en temps boo toogee ba xam ne xel mi kii la